Parce que voilà, c'est sa candidature qui est en jeu puisque c'est lui que l'on soupçonne d'être le corrupteur. kàccoor bi ne wax ji nañ ko APR nati ci dellu siwaat ci kanam tuuti ñaari camp ñi ànd ak Amadou Ba ak ñi Amadou Ba ñay wax waxi report nak Amadou Ba lañuy na jël alal corrompre ay juge Pensez-vous que ferait-on du mec si les faits de corruption venaient à être confirmés par la commission d'enquête mise sur pied hier Légui, ngeen foog ne bu nekkee ne lañ koy tuumaal deug la commission d'enquête bi dëggal ko <laughs> xam Amadou Ba laal dañ koy liquider rapidement oui oui c'est le président du groupe parlementaire de l'armée mexicaine et membre de cette commission qui peint sans rire nous fait comprendre que les juges ne sont pas des malakas tout est dit en attendant que le metteur en scène se dévoile président groupe parlementaire ba démb moo xas juge yi ba mu neex leen mun a duñ ay malaaka ay nitu kese lañ dañ leen a guerre <laughs> kàccoor bi ne kiy togg li yépp ko ma sa xam ma dellu siwaat lan mooy dëgg gi ci manœuvre yu salte yi ñuy def dañoo tuumal ñaari juge yu bañ candidature Karim Wade fan lañu teg bañ candidature Karim Wade booy déposer ce dossier da ngay def attestation sur l'honneur ne man mii bëgg candidat benn nationalité laa am muy nationalité sénégalaise Karim Wade ci weeru décembre mu def attestation sur l'honneur du ko conseil constitutionnel ne benn nationalité la am muy nationalité sénégalaise ñu une liste provisoire bi candidat bu nekk ci liste provisoire am nga droit dugal recours ne candidat bi limouach amul wala am lu manqué ci ay Alassane Sall ne Karim double nationalité attestation sur l'honneur bi nga la nationalité la am décembre du c'est faux le 16 janvier Gabriel Attal premier ministre de France def décret Karim Wade dooga ñàkk nationalité française Quand kon wa conseil constitutionnel a na ko yow ba ñuy déposer attestation sur l'honneur weeru décembre yaa a ñaari nationalité waruñu won téye sax kon ce dossier ca booba wax ji loolu mooy les faits le 16 janvier le Gabriel Attal génne décret bi mom déchéance sur sa nationalité française comme ba muy déposé dossier vers décembre mi ngi won ak double nationalité Il faut que le juge le sukkandiku pour éliminer sa candidature Mom nak amna sañ-sañ ne juge dañ leen guerre. sañ-sañ indi ay preuve am xam ñi ngi wax ne amna ay ay son ay commission d'enquête parlementaire commission d'enquête parlementaire amna lepp luñ am ci ay preuve nañ ko yobbu ci commission d'enquête parlementaire boobule waye li jaaxal ñépp moy commission d'enquête parlementaire bobu manon na sax baña am bu nekkoon ne wek nañ juge yi respecté nañ leen manon na baña am xam ngeen lu tax Cheikh Ndiaye di kenn ci juge yi nekk conseil constitutionnel dafa porter plainte procureur dafa porter plainte yóbbu ko ci procureur procureur bu déclenché woon plainte boobule commission d'enquête parlementaire bi du ci am yoon li ëlëm nit ñépp nag jaaxal leen mooy procureur na pat dafa jot ay instruction na ko pour instruire plainte bi wala lan la ndax nag solidarité de corps xanaa war na am ci biir justice bi ñu tuumaal kilifa yu mel noonu nekk ci conseil constitutionnel kooku ne man dama war a setal sama der di Cheikh Ndiaye porter plainte yóbbu ko directement ci procureur ñu ne pat ci plaintam boobu te plaintam boobu bu ko justice commencé woon instruire rek commission d'enquête parlementaire bi du am ñu mën a laaj est-ce que procureur dafa jot ay instruction na ko plainte boobu bu ci yëy bu ci yàbbi bàyyil ñuy def seen commission d'enquête parlementaire question la bu ñuy laaj waaye foog naa ne ñu jël ay magistrat jël ay juge na leen dans la boue di leen toroxal di wuñ seen sutura jaadu woon na jaadu woon na bu ñooñu jógee dëmb ci procureur ne dañuy porter plainte ngir setal seen der ah procureur instruire dossier boobule pour setal deru ñim bokk ak koor bu nekk ne li leen di tuumaal amul mais lan moo waral ngeen gis rek puccet mom alliance bu doy waar ci diggante député Benno Bokk Yaakaar ak député yu walu yu bokk ci parti démocratique sénégalais loolu la leen ni expliquer mu leer nañ fim mu nekk Amadou nit ku gën a xat ci biir alliance pour la république dafa am xeexoo bu metti lool ponkal yi ngay gis yëpp ñuy wax kenn ànd ceeg moom dañuy ngistal gëmuñu ko àndu ñoog moom xool leen rek Amadou Ba amul congrès d'investiture 2019 ba ñu def congrès d'investiture bu Macky Sall arena lañ ko organisé pour deuxième mandat Mom, bir parti bi nga fa la fekk congrès d'investiture bu normal organiser sen un comité bu def King Fat. lan mo comité pour ne Macky Sall moy tok ba tay président bu APR ñu soppé soppi mbir mi ci réunion na waye sunu candidat moy Amadou Ba kon kay réunion bi liko taxono juk moy deugal na Macky Sall moy président bu APR ñu ñamass ci mbir mi ne Amadou Ba mo fassiyene don ki nga xam ne sen candidat lolou mo waral tax nga gis yenn parti ndaw ndawani De véritablement un congrès d'investiture bu ci mel ni parti socialiste bu ci mel alliance AFP alliance des forces progressistes bu Moustapha Niass ñoom sax defal nañ Amadou Ba congrès d'investiture waaye ci biir APR xeex gu metti la ñuy Amadou Ba waxoon ne sori seen ci xam kilifa yeb di wax kenn àndu ceeg amadou ba yak candidature suba ba ngoon bu guddi ci lañuy sax yak candidature rek lañuy def posez-vous une question qui est simple nit ku ñëw fëgg deñum ne 3 millions 200 et poussière de parrainage Nous dem di déposer ji déposé. déposer parrainage citoyen nga dem déposer parrainage des élus 120, vingt te cent vingt dem bam na ci clé wo sax nit nga yobul ko sa bop su a ki parce que ragal nga ne amaana mën nañ sabote li nga xam ne mooy sa parrainage pour éliminer sa candidature bërki moo jaay dégg ngeen mambay ñaa li mu wax mambay ñaa nee na cent vingt élus yu mu yóbbu woon sax quatre-vingt-dix-huit yépp bàyyi nañ ko ci waaw ngeen foog ne jaadu na président de la république tànn candidat am na mooy candidat APR ngeen foog ne jaadu na rafet na un ministre te du benn de du ñaar de la république président proche très très très proche du président de la république sa bu toogee di wax ci candidat boobu rek musiba la ciy wax mun ta gagné kenn àndul moom te dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk dara du ko ci fekk yéen ñépp gis ngeen ni ñuy toroxalee Amadou Ba ci anam bu doy war kon loolu mooy firndeel ne ñoom problème bi ñu am mooy seen problème mu candidature Amadou Ba lañ bëggul ñàkk ko bëgg nak du forcer sénégalais yi report lolu sen problème interne la ñom parce que ken forcer wu len pour ñu tànn amadou ba ñom ñep ci kilifa yi ña ca kaw dañuy rek ak théâtre mais ci souf sa suné ñi ngi xeex candidat biñ tànn na mooy seen candidat mais loolu Amadou Ba moo la ko gën a xam seetlu leen bu baax de leen def jàngat gis nga jour bu ñu tuddee wàllu report ay report élection commission d'enquête le lendemain soo xoolee nga gis Amadou Ba génn na France 24 ne il n'en est même pas question d'un report c'est acté ay nitam ci presse bi ak yooyu commencé génn reporter des élections et sont c'est inimaginable guéguerre la ci biir guéguerre boobu nag parti démocratique sénégalais laxasu ci dem leen ngeen lire tweet yi nga xam yépp Karim Wade def jëm ci ba coowul nationalitéem jógee ba tey kan la tuumaal tuddul Macky Sall benn yoon dafa ne Thierno Alassane Sall Amadou Ba moo ko yónni ngir mu def recours bii ba pare ne Amadou Ba spécialiste kuubaala amul fit jàkkaarloog moom kon ñoom ñu ngi tuumaal Amadou Ba benen mbir mi timit Amadou Ba ci accuser ne moo corrompre... corrompre juge que ci conseil constitutionnel ngir ñu éliminer candidature Karim Wade wax yépp la dañ commission d'enquête parlementaire bi ba muy jeex ne Amadouba Ba corrompre juge nek ci conseil constitutionnel pour ñu éliminer candidature Karim Wad. bu ñu sukkandiko ci lolu nak ci seeni pexé danal candidature Amadou Ba li ñi manœuvrer au bout du compte la seen trahison lañ bëgg accuser ki nga